deuxième vague bi nga xam ne euh, Ousmane Sonko président du parti PASTEF. tout Sénégalais mënoo ko annoncé que bëggu leen yóbbu aussi Sénégalais yi euh, si si loolu. Ousmane 2024 ngeen di pré euh, ngeen di préparé. on avait mujj vu Mamadou Dia ak ki nga xam ne moo nekkoon Léopold Sédar Senghor on avait vu Abdoulaye Wade ak ki nga xam ne moo nekkoon Abdou Diouf il y avait des combats assez rudes mais voilà ñu ngi ko tegoon si li nga xam ne mooy république. avec Ousmane Sonko on a comme l'impression que da ngeen bëgg a jël euh, pouvoir bi. Euh, vous me parlez de président responsable. vous me parlez de Abdoulaye Wade qui avait le gentleman. Abdoulaye Wade vous me parlez de Abdou euh, Diouf Abdou Diouf tëj na ko. vous me parlez de Abdou Diouf qui a laissé. dugg gouvernement Macky Sall génn Abdou Abdou Diouf génn bi dugg. vous me parlez de Abdoulaye Wade qui a laissé Macky Sall se présenter en 2012. Macky Sall n'était pas accusé de viol. waaw mais je termine. allez-y Khadija vous me parlez de Abdoulaye Wade qui n'a jamais. qui ne s'est jamais opposé à ce que kenn nekk son adversaire politique ñu dem élection Abdou Diouf qui a laissé Abdoulaye Wade se présenter en 2000 ñu def une alternance vous me parlez de gentleman gis nga tey njàpp si ñu toll le président Macky Sall n'est plus candidat à sa succession il n'a pas le droit de le faire mais dañu bëgg a distraire ça c'est votre trouver des c'est c'est la loi c'est la constitution nul n'a le droit de faire plus de deux mandats tout simplement gis nga jàpp xam nga fan la Sénégal toll il est temps qu'on restaure les valeurs dans ce pays il est temps que ñu xam ne ñu nekk ñu juddu nekk ay jaam ñun on est né libre et la chance bi nga xam ne tey dañ ko am nu sommes dans un pays où l'information est démocratique kenn mënatuñoo gëmloo lu la neex on juge de par notre bon sens et je pense que ce procès semblant semble-t-il on le fait on juge au nom du peuple et le peuple a déjà choisi et le peuple xam na fu dëgg bi féete c'est un alibi ce n'est plus un procès ñu bëgg a yóbbu ci justice populaire xam nga alibi mooy lan mooy di ut ngant pour mun a am ci dara mu am xam nga lan mooy seen problème tey ils savent qu'ils sont perdus dañu génn ci xolu sénégalais yi xam nga diggante kiy jiite ak ñi muy jiite cofeel moo amatul seen diggante bu ñu demee ba mbir toll foofu da ngay ne il faut faire tout pour garder le pouvoir et je reprends du président bi mu recevoir sa task force républicaine il faut qu'on fasse tout pour garder le pouvoir maanaam seen seen rela garder le pouvoir le pouvoir appartient au peuple et par le peuple souverain par des élections justement libre et démocratique des élections où chaque candidat qui veut se présenter doit avoir la possibilité de le faire ñun li ñu dul nangu tey xam nga mooy lan xam nga président Macky Sall bokkatu loolu leer na nañ mais ce n'est pas à lui de choisir demain kan moo koy remplacer xam nga lan mooy problème am bu ko leeroon ni su demee keneen moo koy remplacer bu sax nekk candidat mais son problème aujourd'hui c'est que il est sûr à 99 pour cent que Ousmane Sonko est son successeur et que loolu la mënul nangu gis nga bi muy doon président yàlla tàgguwu ko nguur yàlla moo koy joxe gis nga Ousmane de président de PASTEF yàlla bu tuddee si jëwam ni day doon président mbindeef buy dox si suuf mën a ci dara te ñun yàlla la ñu gëm gis nga projet bi lum ñu jaral fu ko nit nag weesu na ko tu sais pourquoi nous ne le faisons pas pour nous. Jusqu'à notre... marquer si, euh, marcher C'est pas une question de marcher sur des cadavres. C'est une question de quoi Est-ce que le président euh, mesurer, Est-ce que vous mesuré cette ampleur du discours aussi à bonne porte les am, euh, si, la jeunesse sénégalaise responsabilité. On mesure ce que nous disons. Et ce que nous xam nga diam yi nga xamné dañu présenté wu ñu présenté un candidat pour son parti ñu dem élection bu a xam ne dañuy tànnal ki ñuy jiite wala dëkk boo xam ne un président moo ko ba ñu neex ko ba ñu yegg ci cappaandaw euh, deuxième mandat mu ne par force damay defi troisième mandat gis nga ces paradigmes là dafiy jóge jàpp pour la simple et unique raison que nous avons soif de justice, nous avons soif de démocratie et nous n'accepterons plus qu'un président lu ko neex ci suñu constitution et comme je te disais tout à l'heure gis nga à partir de 2024 on va dessiner une nouvelle trajectoire pour le Sénégal un Sénégal où il y aura une séparation des pouvoirs Sénégal boo xam ne ah, l'exécutif dafay génn ci pouvoir judiciaire exécutif dafay génn ci pouvoir législatif et que chaque pouvoir par rapport ak li nga xam ne moom lañ la dénk nga mën a doxal pour que ñu puissions avoir un pays stable tey li ñu am mooy l'exécutif est omnipotent aussi bien dans la justice je ne parle pas de tous les magistrats encore une fois mais une bonne partie tey sont inféodés à la la l'exécutif lu mu leen wax loolu la ñuy def comment voulez-vous aujourd'hui qu'un procureur soit libre pendant qu'il dépend d'un ministre de la justice qui lui-même dépend d'un président de la République. Mmh. Comment voulez-vous que le président de la République, euh, le, le, le, dans la magistrature suprême, aujourd'hui, qu'il puisse y avoir une indépendance Gis nga li ñuy xeex c'est pas une question d'homme c'est une question de principe njàpp li ñuy xeex c'est une question bu nga xam ne dafa mënatul ñàkk ci suñu histoire dëkk et toute nation am na foo xam ne bu fa tolloo on lutte aujourd'hui pour que suñu ay acquis démocratique pour que li nga xam ni dafa am ñu ko xeex ba mu egsi fii ñu bañ ko bafoué parce que cette ligne rouge là une fois qu'on la traverse. c'est fini. Vous pensez que le Sénégal n'est pas un pays démocratique? Le Sénégal a, a perdu de sa superbe. le Sénégal bi ñu doon cité en référence. en 2000 sincèrement euh, euh, euh, Sénégal bu nekkutoon un pays démocratique di la neex. non je est-ce que c'est pas trop facile aussi? non mais non ça suis ah, désolée. je suis désolée mm, mm, mm. que pays ñu mën a cité kon. lorsque la justice se met à voilà ça c'est le Rwanda comme exemple mais dans ces pays genre débat yi sur le président mënul dama lay donc Sénégal am na démocratie si ça arrange le le le peuple si n'arrange pas d'autres politiciens. le Sénégal amul démocratie. Ndiap je vais te dire la démocratie c'est pas débattre comme ça seulement. qui qui <laughs> symbolise la débat ça en fait partie. mais ce que non c'est pas le plus important xam démocratie. <laughs> c'est un pays bi nga xam ne l'exécutif laisse les autres pouvoirs s'exprimer. mu arrangé ko ak mu bañ ko arrangé vous pensez que c'est le cas aujourd'hui au Sénégal moi j'ai pas cette impression benn est-ce que tu crois que c'est normal dans un pays qui se respecte où des rapports Cour des comptes rapport IGE OFNAC di génn parce que da nga ànd ak pour partie au pouvoir ñu bàyyi la. non non non tu me terminer si loolu. non euh, tu sais tout ça partie des ingrédients de la démocratie euh, xam nga dañuy wax si démocratie te mënuñu ci jàllee noonu. parce que Sénégal aujourd'hui est mm-hmm. en train de vivre les heures les plus sombres de sa démocratie tey jii li xew. Euh, ak nit dof mon frère li xew avec des procès est-ce que vous avez point procès Ousmane Sonko non si procès bi la ñu nekk catégorie bi nga xam ne duñu wax ngeen ko pour bañ a dem uyu Ousmane ak tamit yan conséquence la mun a apporter le si euh, même si pour personne kii kii di Ousmane Sonko bu yàlla dogalee euh, li ngeen bëgg moo nekk yéen waaye Pastef pour mu nekk seen président le président de la République euh, du Sénégal au, au niveau international. Est-ce que le président Ousmane Sonko ne gagnerait pas à se présenter si On vous ne se présente euh, pas. procès ne serait-ce même ça pour sa crédibilité dañu demul parce que tu sais ñun dañu nanguwul justice boo xam ne gëmatuñ ko di ñu juger. Finalement on dirait que vous avez peur de la barre. et le pourquoi. je suis désolée ce n'est pas le cas. et tu le sais très bien et sénégalais yi ñuy setaan xam na ko xam nga lan la ñuy wax justice boo xam ne depuis qu'on a commencé à parler de cette affaire. dañu bafoué suñu droit yëpp dañu réduire toutes les preuves yi nga xam ne dañ ko joxe jël ko teg ko fee justice bu nga xam ne dafa nekk aux commandes waxumal sax justice à genoux mais c'est une justice sous terre duñu wuyu ji à cette justice parce que jàpp nañ ni suñu ay droit respecté wuñ ko parce que jàpp nañ ni dañu nekk di doxal la volonté d'une personne pour écarter un président c'est un alibi il faut qu'on arrête aujourd'hui dama me parler d'un procès d'un mascarade boo xam ne procès la boo xam ne ñëpp xam nañ objectif bi comment faire pour empêcher euh, au leader de de Pastef d'être candidat c'est ça on n'est plus en train de parler ndax y a un viol ou pas on est en train de dire comment faire pour l'écarter pour qu'il ne soit pas éligible pour qu'il soit euh, envoyé euh, en prison comme ils l'ont dit hein des gens se sont permis tey toog ne dañu war a rey Ousmane Sonko Ousmane euh, Suzanne Camara vous vous vous vous rendez compte dans un pays qui se respecte et ce gars il est en train tey jii di doxi di dem di def lu ko neex lorsque ay nit di saaga Ousmane Sonko di ko menacer de mort dans un pays qui sa respecte ñu bàyyi leen ñu taxawaal. c'est pas normal nous. c'est pas normal ñu ñuy ñu ñuy tëj pour ay euh, commentaires sur les réseaux sociaux et autres à quelle justice voulez-vous qu'on se fie à une justice bi nga xam ne daf ñuy bâillonner à une justice bu nga xam ne suñu indee suñu ay preuves teg ko daf koy à une justice bu nga xam ni euh, dafa féodé à l'exécutif nous ne répondrons pas te xam nga lu ci am solo mooy chacun d'entre nous tey ku waxul dëgg dangay wax safaan xam nga ni lii am du dëgg du yoon xam nga ni lii am jaay doole la te xam nga ni lii am lii mooy fitna lii mooy injustice te ñu ngi koy dund suñu parti mhm. on est arrivé nag à un moment où dañu yegg suñu terminus gis nga boo yeggee terminus wàcc rek a ci tegu. Mhm. te li ñu gëm mooy le président Ousmane Sonko du wuyu ji te nous serons le bouclier je parle pas que de la jeunesse des femmes yi nga xam ne tey ñun ñoo gëm le président Ousmane Sonko nous serons son bouclier. mais vous avez te nous allons restaurer la dignité de la femme. mars dernier dootu fi amaat. on verra donc la confrontation. voilà elle est déjà actée. de toutes les façons on verra qui vivra verra gis nga jàmm moo gën lu dul jàmm. mais gis nga dans ce pays pour jàmm am dañ koy teg ci dëgg kenn mënul teg jàmm ci lu dul dëgg du yoon. njàpp <laughs> le Sénégal est en train de vivre un tournant de son histoire te am na foo xam ne histoire dëkk bu fa tollu ku nekk da ngay assumer sa responsabilité individuelle. Mhm. en tout cas man Khadija j'implore mon mon droit à la résistance. Mhm. comme la constitution me le permet et je sais que tous les Sénégalais tey. épris de justice, ne laisseront pas l'histoire s'écrire pendant que nous, nous sommes seen di nelaw quelque chose est en train de se passer et c'est une révolution irréversible kenn mënatu ko arrêter mm-hmm. et ce système va disparaître mm-hmm. après juste rappeler aux internautes yi nga xam ne ñoo ngi suivre différentes plateformes yi juste permettez à pour me euh, souffler un tout petit peu je vous rappelle